waañ bi lu mu tànga tànga foog ma dugga bi ci biir waañ bi seen ni waañ bi taajoo ma dal di indi yekk a teg ñeen ñëpp ngeen kontaan na réewi Gambia sas nekk ni ma leen ko de waxee yéen suñ diggante yéen dafa am lu bari lu ci nekk li ci nekk mooy di leen indi li nga xam ne nii da ngeen cee jëriñu ma di ci jëriñu ñëpp di ci jëriñu muy lan tooga dafa nekk loo xam ne boobu set rek géej la saa yoo demee ba nappi rek indi beneen façon saa yoo nappee rek indi beneen façon moto tax ma nappee damaa indi lu ees yéen ñëpp ngeen kontaan ma jàngal si ñu dal di teg suñ paree rek Gambia dafay gën a dem ca kanam moo tax ma ne leen saa su nekk rek dama leen di bëggee bu baax a baax a baax ma dal di jël kooku noonu ci line bi naan ko hello asalaamaaleykum. hello. asalaamaaleykum. naka ngoon bi. waaye maa ngi sant bu baax. tooga bi rafet na. waaye ma ne maa kay. nekkul na maa ngi toog suma. suma salon bi maa ko xool. ndeysaan. bii gars yi su su fekkee a ko am si ndoga. <laughs> Ah. <laughs> waaye damaa jégalu de. maa ngi ko suma jabar mu toogal ma elek. <laughs> façon bii ne ah. man tey yërëm naa jigéen yi de. waaye maa ngi jégalu de. fanmi gudaas weeru allahumma amin allahumma amin yàlla mu yàlla ñu génn si weeru koor gi allahumma amin ok bye jërëjëf di bëggee di jégalu tamit ci góor ñi di jégalu ci jigéen ñi na xam naa ne fi mu nekk góor ñi moom ku ci gis di nga ne ëllëg nañ pankeer waaye dafa am solo tamit ñu wàññi mbuuru mi léegi léegi ngeen génnee feneen moo tax ne leen saas nekk dama leen di jàppale géej laa nekk rek saa yu nekk ma nappa indil leen lu ees mota tax ma ne leen pankeer gi ma leen indil nekku ne rek ne leen mburu mi rek la ñoo ndogoo bi te ruy bi bi te cuuraa bi déedéet léegi am feneen foo leen gën a gis ngeen panketi jën bi lii wax naa leen ne ku ci ndogoo dal di ko xar ci digga sotti ci li ñoo ngi ba ŋaañ dal di jël mburu ne nii waaj ma dal di jël kooku noonu ci laan hello naam tànk maa ngi ah mbaa du suma doom beeti la ah waay waay ma ne kontaan naa si yow kooku kan la noonu Hadijatu man de laa ubbi bitig beneen suma beneen nene laa amaat di yaa nanga def nag si loo nekka ah? sa affaire sax ma neex waaye dama laa seet si wax ma foo dëkk yow kele Ibo Town Laatil Kunda Laatil Kunda si bon boor ban Laatil Kunda saabu jeem jaamaan bàyyee tap ah yow suma kër papa nga nekkee bor boobu la suma pa dëkkee ma suma maam jeex ma sant moo tax nga baax moo tax nga neex ma waaye kontaan na mbaa yow doo saalum saalum. jërëjëf bye bye. all <laughs> di bëggee kooku noonu bu baax a baax a baax waaye saa su nekk réewi dama bëggee xale yi nga xam ne jamono ji dañoo toog di seetaan di ci jàngee lu baree baree bare ba tax na dama bëggee xale yi nga xam ne nii dama leen di ñaanal ñëpp ñëpp ñëpp képp koo xam ne nii rek dag ma bëgg nu ko rob laa la bëggee ba tax na saas su nekk su ma fi toogee dama leen di bëggee moo tax ma ne leen képp koo xam ne bëggoon naa bokk ci weeru koor bi rek ekkati sa téléphone nga koo ma ci 36 triple five six one. three six triple five six one hello asalaamaaleykum. waaleykum salaam naam yaa moo ñëwaat. ajaratu. <laughs> dafa am ma doon toog moo tax ma doog online bi ne xaaral a express ndax ne maa euh, bu baax. dëgg la. ñu nga présenté sa programme definitely you doing very well. thank you. te bëgg naa nga keep ko up. jërëjëf. xam naa ne Saalum Saalum nga yóbbu ndéba fil bi déedéet <laughs> dañu fonk sa ganaar la importé dëgg la li ma doon wax tamit rek mooy ngeen diñu débale si recette bi waaw recette ak méthode bi ah, lan ak lan nga nii bu nekk quantité bi ñaata laa doon waaw mhm. su ko defee ñu mën a xam ñun tam mën a émalé bala ñuy def mu ëpp wala mu manqué waaw dëgg la parce que moom tam méthode bi thématique yi ñii nga saatee mhm. nga def lii mhm. understand nga waaw indi. dëgg la ko ko xam naa ne bii moom su neexee yàlla balaa weeru koor bi dee su ma ko mënee. waaw dinaa ko def. dañoo def sa su ma féeree rek wala nga dimbale ma yaay suma raka. waaw dëgg la maa ngi leen ko thank you jërëjëf kontaan naa kontaan naa bu baax a baax a noonu ni Ndeye Ndiaye kooku ñoo bokk Saalum bi waaye xam naa ne su nekkee ajaratu Fatou Diop Rachid mu ngee déglu xam naa ne boobu ëllëg mooy nekk main priorité am mu ne ma nii lañ koo defee waaye saa su nekkee rek ñi ma nekkal ñi nekk suma gannaaw ñoom ñoo maa jàppale na wax naa leen ne man kenn rek tooguma fi ñi ma nekkal ci biir ñoo maa gën a jàppale ba tax na li ngeen wax noonu xam naa ne moom mu ngaa seetaan ndax mooy programme manager bi te xam naa ne na ci taxaw tànka yoo xam ne ni lépp lu ñoo defatee dina ne nañ ko defee nii nañ ko defee nii moo tax ma ne leen fii doole gannaaw doole jën ndox te ñoom ñoo fi nekk dañoo dal di def ba mbaa moo tax ma ne leen réewi Gambia sas nekk dama leen di bëggee di balu nag ñëpp axa te di leen wax ne dama dal di def ba mbaa ma dal di jël kooku noonu ci laan bi naan ko hello asalaamaaleykum. allo asalaamaaleykum. maaleykum salaam. naam. yaa ngi jërëjëf. kontaan nañ trop si soo am si quantité jën bi xanaa luy sëy si mooy man luy soo daaw mooy sukkur buñ ci def waaw su nekkee yow mun nga ñëw wax tiis bi am soo ne na yow mosoon ngal saf na nag neex na du ci feeñ noonu sukkur bi daal déedéet du ci neex la ci def ah neex la ci def neex na ci mhm. xam nga bariwul ah, ñetti kuddu rek la waaw ah, ok ma sukkur gi moo a a jaxase a mel waaye déedéet na ci nag waaye bu la neexee tamit waaw neex na ci am na de nga tamit léegi soo bàyyee xel nga togga togga ba xala ëpp nga ne ma yokk ci sukkur mu xal koo tem-temal waaw wax nga dafa neex waaw loolu moom waaw tax ma ne leen du du ko yaakaar <laughs> du ko <laughs> yaaxaar loolu du ko yaaxaar du ko yaaxaar du ko yaakaar leen bëggee bu baax a baax a baax jërëjëf waay bëggee leen la torop bëggee nañ la moom macha allah <laughs> ñoo ko bokka waaye ni ma leen ko defalee di waxee di bëggee yaay jooju noonu bu baax a baax a baax waaye li moo wax tamit am na solo na su kursit na ko si xala jaaxal tuuti waaye ba teeree dama leen di ñaaxaat ne leen léegi-léegi nga gis ni tooga tooga nga xala saf sukur nga ne xaaral ma sotti ci tooga nga xala nga ne xaaral ma sotti ci sukur daf koy balance di ngay gis ne daf koy delloowaat nga amaat guuga nga soxloon ba am na ñoo xam ne balaa ñoo bu ñu toggee yàppa sànni ci sukur mu gën koo saf dafa tax togg ga jóg ca ko su ko dafa am lu bare lu moo def ci togga moo tax ma ne leen sas nekk dañoo dal di def bamba réewi Gambia sas nekk su ma fi toggee damaa bëggee ñëpp moo tax ma képp koo xam ne bëgg naa bokk ci togga bi ekkati sa téléphone rek nga call ma ci 3634561 waaye damaa bëggee suma xarit di ko ziyaare ci kawar gi kooku di Sadio Fati di ko ñaanal moom ak njabootam bi yëpp ci weeri koor gi lépp luñ bëgg a yal na leen ko yàlla defal suma papa jooju nekk foofu noonu ca Sweden maa ngi koo bëggee di oncle Moussa maa ngi laa bëggee fàttewuma si jabaram di anti Betty waaye damaa bëggee suma ndijaay di oncle Tidiane Ndiaye kooku lu mu am ci njabootam man dama ci bokka moo tax dama ko ñaanal lim uti na ko yàlla mais ba mu dellusiwaat fii si njabootam waaye di bëggee ñoom Ibu Mbuum ñoom ñëpp nekk foofu noonu fàttewu ma si ki nga xam ne mooy Malick Ñang ñoom ñëpp dama leen di bëggee ba tax na nag damaa bëggee ki nga xam ne nii mooy Hadi Faye kooku mooy chéri Birane Ndiaye ñoom ñëpp nekk foofu nañ ca jaamani yaa maa ngi laa bëggee bu baax a baax a baax ñaanal léppal li nga bugg yaa ko xam na la ko yàlla defal di bëggee waa Amérique waa waa Angleterre waa tey nag waa nungu kebe dafa am fu bari fuñ laa la man ba tax na dama leen di bëggee waa ci rajo Runku ñëpp maa ngi leen di bëggee ndax foofu suma pa nekkoon na fa di traite ba tax na dinaa fa dellusi su weeru koor gi jeexee waa ki nungu kebe waa ci la ñëw fa bokkaay yéen dal di defa yéen ba mbaa waaye damaa bëggee ki nga xam ne mooy biraan bu mi nga xam ne mooy jàppoonte ci caméra bi kooku mooy bàyyi kii nga xam ne mooy Asim Mbuub di bëggee koor mi nga xam ne tey nag gis ngeen ko rek mooy dal di defar ba mbaa studio bi ba mu ma di ko ñaan ñaanal yal na jàmmam yàgga ñoom Aïssatou Thiam maa ngi leen di bëggee Mama Dieng mi nga xam ne tey moo doon direct programme bi ma di ko ñaanal moom itam weeri koor gi bala moo jeex yal na guru ñoo fekk si ko fa di bëggee ñoom Cheikh Dia fàttewu ma si ñoom Keba Demba képp koo xam ne jàppoon nga ci programme bi mag ngi laa bëggee waaye saa su nekk dama bëggee yéey sa jawara sàmba mi nga xam ne ni boo leen gisee suma boppa bi dal di gis makeup bi ngeen xam ne moo fa jaar waaye ni ma leen di wax rek mooy ne dama leen di dig dajee incha allah alxames bii di ñëw su ko defee rek ñu dal di def ba mbaa waaye li ma leen di wax rek mooy ne ekatil sa téléphone nga call ma ci 36 555 61 36 555 61 seen xarit la woon maam Jeng di leen dig daje alxames bii di ñëw incha allah bu ñu ko yàlla mayee fekkee ak yéen beneen façon ñu tooga jërë ngeen jëf